que monsieur Faye ñëw na quand même. d'accord dinaa ko woo léegi. maa ngi bëgg a dee ak fii nii. Ba na nga def. metti na. xam naa da loolu moo tax nag ma indi la verre bi nga xamante ni moo gën ci verre yi. verre bi nga xamante ni. soo ko defee sa bâtiment du mos a tànk. te it day yaxanal énergie bi nga xamante ni. moo jëm sa climatiseur verre baa ngi nii. voilà. bii nag moo la sonal. verre bii moom moo nekk sama bâtiment bi yëpp. tollu day lëndëm dafay tàng. te mhm. am nañ climatisation mais ça va pas ba doxul. muy noonu. léegi lu ci pexe. dem Mbaye frère bi nekk HLM. nañ dem. établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. noo ngi a sant nag ci yàlla. dégloo leen ndigal li dégloo noo ngi gën a sant sunu borom bu baax ci jotaay ñaari kilifa yi toog ci bokk ak ñun liggéeyu farata sunu borom ji nga xam ne moom la ñu bokk ñoom ñaar nag mën nañoo taxawal réew mi yépp kii day taxaw taxawaayu waajur kii day taxaw taxawaayu doom ñoom ñaar day mel ni taxawal nañu réew mi yëpp noo ngi leen di sant bu baax di leen sant ji jataay bii nu yàlla boole noo ngi gërëm bu baax ñoom nag ñoom ñaar nag lañuy ñuy gën a ñaan suñu borom ñoom ñaar yàlla yéwénal seen mbir yëpp yéwénal seen diggante bu baax a baax bu ko defee mbirum réew mépp day yéwén ñun ñoo ñu ngi leen ñu ngi leen di ñaan ñoom ci seen bopp ñoom ñu jox yàlla njukkal sunu borom teral na leen ba noppi lu leneen lu ñu gis lu leen neexut ci seen bopp loola dogalu sunu borom la sunu boroom jaamam bu mu cëral in fokk mu nattu la kon luñ gis lu leen naqari ci seen bopp rek sequñu ko yàlla moo ko dox ci defaram waaye yàqul fowul juumul te mooy def mooy dindi kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoom ñaar ci jataay bi di leen ñaan ci suñu borom yàlla def liñ bëgg ci ñoom réew mi gën a defaroo ci ñoom ñi ngi leen di ñaan ñoom ci seen bopp itam ñu delloo yàlla njukkal sant ko ci lim leen defal nañu muñ ci lim leen teg te xam ne seen njëriñ képp lay doon waaye nañ ko wëlbati ñoom ñëpp jëf ko muy yéene ju rafet muy jëf ju baax loolu mooy nattu bi nu yàlla nattu nun ñëpp tabaraka alladi bi yadihi lmulku wa huwa ala kulli shay'in qadir moom mi nga xam ne moo bind dund ak dee ngir mu nattu leen ci dund googu ba ba su borom sàkkee dund sàkk dee lim liñ ci wax leer na nañ ñi defe nu ko lu dul def loo nattoo rek di nu seetlu li ci ku ci gën a rafet jëf loolu leer na nañ laay jooju doyoon na